yow jullit bi su fekkee ne yàkkamti nga nit ki def lu bon nga monte ko def ko ci tiktok bi wala ci facebook bi ngir weer ko walla am ay vue fàtte nga li yonent waxoon nee na jullit dëgg mooy koo xam ne du lore ci aw làmmiñam du lore ci ay loxoom su fekkee monter nga ko nag sa loxo yi ñu ngi lore gis nga li yonent wax moo la war a yóbbu di la yóbbu di la yóbbu ba ci wala xat karam naa bani aadam yàlla nee na dañoo teral doomu aadama kon waruloo weer ab yéeféer sax waxuma ak ab jullit bayil xel su fekkee weer nga nit li muy tekki mooy baaxoo ku bon nga ndax ku baax du def lu bon kon nag moytul koo weer tey bu ëllëgee yàlla dina la weer te yàlla moom mi ngi lay vie bayil xel bëgg ay vie ba mu tax mukk nga monte lu bon di ko def ci tiktok bi wala ci facebook